Nous ñu fi dajawaatee tey ci activité boo activité de jeunes, la euh, docteur Macoumba Diouf nekk maire de la commune de Latmingué gunge ci woon ndaw ñi nga xam ne ay jeune rappeur lañ euh, nekk ci commune bu Latmingué ànd ceek euh, suñu frère Jiman ci benn programme bu ñu festival international pour lever des confiance conscience ñu ñëwoon tey au niveau de Latmingué def fi benn panel boo xam ne dañuy jàppale jeunes artistes yi naka la ñuy mën a taxawalee seeni projet euh, mu nekk fierte bu rëy ci ñun ndax euh, jàpp nañ ne tey euh, artiste war na mun a am yeneen yëngu-yëngu yoo xam ne nekk na ci loo xam ne peut-être duñ ne rek rab lay def walla musique lay def ndax am yeneen yoo xam ne daal te être bu ci sukkandikoo li muy xaar ci ëllëgam dana ko ci gis tax na docteur Macoumba Diouf aussi comprendre loolu mu ne dina ci gunge ndawam yi kan ma leen koy defal nag mooy artiste bu mag xam ne euh, aduna bi yëpp ko xam muy suñu frère Simon euh, xatoon na lool mais vraiment xam ne euh, jeunesse Sénégal moo soxla moo tax mu bàyyi lépp lu mu doon def ñëw gunge si les jeunes rappeurs wala les jeunes acteurs culturels de la commune de Latmingué. asalaamaaleykum man maa ngi tudd MC Das, d' accord gannaaw loolu maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp bàyyi ma kenn di presque respect vraiment di wax aussi ci cadre artistes yu nekk au niveau de la commune de Latmingué di si bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn waaw jafé jafe yi yu ñu am fii nii bëri na parce que aussi dañoo manqué ku ñu booster eh, dañoo manqué aussi comme ay genre festival yoo xamante ni dañ koy def fii donc bu ñu gisee fii si moo indi fii décentraliser fii nii au niveau de Latmingué dañ koy rafetlu vraiment di ci am mbégte contentement parce que lii nii bokk na ci loo xamante day tax ñu gën a ràññee artistes yi nga ñu ngi au niveau de Latmingué ñu bàyyi xel ne tamit fi amna ay talent yo xamante ni macha allah kenn dàkkuñu euh, lu ñuy def boudé culture hip hop rek mën nañ ko xam nañ ko aussi té xam nañ tamit fu ñuy jaar donc lii nii ko gisee tamit dañ ci profité vraiment gars yi tamit di ñu bàyyee xel bu baaxa baaxa baax té xam nañ ñun ay bañkat yéen tamit. Simon Bouka artiste rappeur producteur directeur de label Jollof for Life. Euh, l'importance d'un tel événement c'est de montrer que les cultures urbaines sont partout que les cultures urbaines sont présentes un peu partout au Sénégal. Les choses, ce n'est pas que Dakar ou des grandes régions comme euh, Kaolac, euh, Ziguinchor, Saint-Louis, mais ça se passe aussi à Latmengue et qu'il y a un potentiel ici et que ce potentiel aussi peut éclore un peu partout. L'idée, c'est de vraiment capaciter un peu cette nouvelle génération, ces jeunes qui en ont, qui ont, qui ont vraiment soif de, de, de montrer leur talent, de montrer leur savoir-faire. Et nous, on vient juste essayer d'apporter ces, ce peu d'expérience qu'on a acquis depuis maintenant 27 ans dans le game, les tournées qu'on fait un peu partout dans le monde, ces expériences qu'on reçoit, on vient aussi le partager avec les jeunes, écouter aussi, écouter et apprendre. On ne vient pas juste aussi pour dire c'est nous les champions, c'est nous les professeurs, c'est nous les meilleurs. On vient aussi écouter et dans les échanges aussi, on va apprendre. Justement, ce festival, s'appelle Éveil des consciences. Et l'éveil des consciences, c'est leur dire que là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. Certains sont restés ici. Moi, je reviens. La semaine dernière, j'étais à New York. Tu vois des centaines de jeunes qui quémandent. Grand homme, Malek. Parce qu'on leur vendait l'Eldorado. Ils croyaient que quand ils arrivent à New York, ils sont, voilà, ils sont sortent. Ça ne marche pas comme ça. Si 100 Sénégalais rentrent à New York, 2000 Mexicains sont rentrés à New York. 2000, 000 euh, euh, gens du Nicaragua sont rentrés à New York. Donc, il y, a, un manque de travail, il y a vraiment un manque de place, beaucoup se font déporter, certains perdent la vie, et il faut aussi leur dire ces réalités. Certains sont arrivés, certains ont commencé à travailler, on n'en dit qu'on vient pas, mais certains quand même ont réussi ici chez eux. Et il y a un potentiel ici, que ce soit dans les cultures urbaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, il, y a un potentiel, il faut y croire pour s'en sortir.